mi ngi cosaanoo ci leeru yonent bi ci leeru yonent bi yàlla bind lépp loolu la ñëpp xam mais comment comment Seydi Hadji Malick dinañ di expliqué comment <laughs> dinañ di expliquer comment nan la yàlla jëlee ci ruuxu yonent bi bind ci univers bi bind ci ruux yi d'abord bind ci ruuxu aadama bind ci univers bi créé ci la lumière ba indi ci nag particule bu ndaw boobu nga xam ne moo créé l'univers moo tax da ngay ñu lay wax ñaar yàlla lim bind ci loxom ak lim bind ci khalimam nga yàlla limu bind ci khalimam ak limu bind ci loxom limu bind ci loxom moy création bi nga c'est pas rationnel moy badihu samawati wal ard limu bind ci khalimam moy xalaqa samawati wal ardi gis nga boog see yàlla di utiliser ñaari terme yoy ci création univers bi yeb badihu samawati wal ardi

cause boo gis produire ben effet wala effet bo xamni amna cause effet boo gis rek amna cause mais cause boo gis produire ben effet donc yàlla bu ne badixu samawaati wal ardi moy création bi nga xamni cause bi nga xamni effet bi nga xamni amul cause mais bu ne xalaqa wal ardi moy l'évolution de l'univers donc ça ça s'explique c'est rationnel awalam yaraw kayfa yubdihu llahu xalqa summa yuiduhu awalam yaru il la début de la création parce que tàmbalikaay bi la singularité le point zéro le point bi la que l'on l'atome primitif wala la singularité le point zéro boobu nga xam ne moo créé benn inflation boo xam créé l'univers nekkoon benn particule bu tuuti bu toll ni catu pousse ci tuuti waay mais am ay milliards de tonnes de ko ko des milliards de degrés 10 puissance 43 degrés Celsius moom la doon amoon température boobu moo ci nekkoon ci puissance 43. température c'est-à-dire des milliards et des milliards de milliards de milliards de degrés c'est inimaginable pour un être humain Max Planck moom la ñuy wax.

fi mu jaar ba yàlla génne ci univers bi moo tax mu ni wa axlama allahu hadina xamal na ko moom yàlla mais lu jiitu loolu mu koy xamal wa innahu iza araada laahu nashatana abaana min nuurihi nuural nabil alamin mu ne wa innahu iza araada bi mu ko soobee moom yàlla ci amal sunu ci créer dara parce que boobu yàlla rek moo nekk leneen nekkul yàlla kese moo existé leneen existé wul wa innahu is araada bi mu ko soobee moom yàlla ci amal sunu abaana ci la feeñale wala abaana ci la génnee ci la leerale ci la amale en tout cas min nuuru yi ci leeram nuuru nabi léeg-léeg nga dégg ñu naan la noo yàlla moom dara du ca wàññeeku dara ci jóg waaye barki démb rek am na ku ma dégg mu wax ma ko mun ma ah exemple bi mu joxe ne xaw ma kan a ko joxe ni ni waa ji waaw yow sa sa sa audio bi sa vidéo bi nga transféré cinquante personnes ndax dafa wàññi vidéo ba <laughs> mu ne ko déedéet mu ne ko pourtant transféré nga ko cinquante personnes ñoom ñëpp jot ci vidéo bi te taxul sa vidéo dara jógu ci noonu rek la yàlla mel donc leeru yonent bu jógee ci yàlla noonu rek la mel mi ngi mel ni vidéo audio boo transféré cinquante personnes te taxul audio bi ko yor manqué wul loolu lan la y a de ces choses yoo xam ni nit ñàkk xam lu yàlla mooy tax nit di ko wax il xam yamale yàlla ak mbindeef moo xam dafa matière la duñ créer de loo matière la maanaam ñoo xam imagination ci yàlla foofu la toll mooy considérer comme matière comme produit boo xamante ni si créé la matière du matière la matière moom du lumière la lumière il est plus que ça moom du ruux moo créé ruux moo ko et puis leneen amul yàlla parce que bu fekkee ne yàlla jëliwul ci boppam kon dafa am fu mu dem jëli ji fa dem jëli ji fa fan la kon dafa am fu yàlla nekk am fu nekk foo xam ne yàlla fa dafa am dafa limité dans l'espace-temps il faut nit comprendre kooku du mooy yàlla yàlla amul limite dans l'espace-temps amul fuy exister foo xam ne yàlla fu fu rek parce que fa nekk moo tax gens fu yàlla nekkul moo tax mu ne wa innahu isarada laaw nachatana abaana min nuurihi nuural nabil alami bi nga ko soobee moom yàlla ci amal cunu abaana ci la feeñe min nuurihi ci leeram nuuru nabi xam nga nag leeru nabi la wax nuuru nubuwa al alami di Seydina Muhammad maanaam ci la jëlee leeru nubuwa ruuf ko ci particule boobu nga xam ne mooy ruuxu yonent bi mu nekk ruux goo xam ne xamagul dara xamagul yàlla yàlla genn na ruh rek mu nek luy lu le vivant quelque chose luy dund lu réel mais mënagul xam boromam ruh gi mënagul xam boroomam mënagul xam kan moy subhanahu wa taala xamul nu koy bëggee xamul nu koy jàmm parce que lo xamul do ko xam yàlla jël nak benen leer bu tuddu nubwa bo xamni moy gu moy li liy li ñi ñuy ku ci yàlla mu jël ko nak def ko ci leer googu abana min nurihi nurun nabil alami nurun nabil alami ci la jëlee nab nubuwa boobu def ko ci leer googu mu yonent bi ruuxam soo nga nekk ruux gu mën a bëgg yàlla ruux kese la ñu ne ko loolu kañ la booba Seydi haji malik mu ne booba innal awalima innal awalima naka univers yépp liaa wasaafilaha ak la ko féete kaw xam nga lu garaaw foofu dafa la wax ni la les univers la wax au parallèle au pluriel inna la awalima naka univers yep te pourtant scientifique yep ak borom xam-xam yep liñ japon moy univers ben univers la l'univers rek mo la Il y a pas d'autres univers on pouvait même pas imaginer ça d'ailleurs bi bi ñuy discuter ça, est-ce que univers bi sax amna commencement dañu musu nangu ne commencement dañu japp ni fi la mas nekk loolu la wax l'état stationnaire ñom ñëpp il défendait l'état stationnaire que ni voilà les étoiles que vous voyez les galaxies les l'espace le temps lii yëpp de mas a nek musu fi jog amul commencement amul fin dans le Japon. mais après en 1965 puis Benjias et Wilson découvriraient cette circuit de rayonnement cette température de 5 Kelvin bi nga la chaleur originaire de l'explosion de l'univers ci lañ xamee ni kon effectivement affaire bi dafa concentré après mu am Big Bang une séparation parce que Hubble Hubble mo wax ni bu ni l'univers dafa nékkone ben point bu touti bu départ def def def benn inflation dégagé wu dina un résidu de de cinq calvites